asalaamaaleykum mbokku internet yu ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen émission bu njëkk di sunu environnement ñu am été ak contentement bu baax di ci monsieur Matar Diaw di environnementaliste te xam-xamam màcc jëm ci wàllu woowu gannaaw ba ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet yu ñuy seetaan monsieur Diaw. Ah, jërëjëf Amine maa ngi nuyu beaucoup internet a plus particulièrement ñi nga xam ne ñoo c'est une préférence moi en TV moi sac sac bu effectivement man euh, lu ñu jot a jàng suñu xam-xam ma match c'est ci wàllu environnement donc environnementaliste la de formation li ci ëpp solo moi effectivement tey fi ngeen ci place su Hann di fi def émission bi c'est une première émission émission bu am solo la pour ñun lolo montrer ne vraiment Hann bi ngeen di wax en TV bi ngeen di wax loolu ngeen dëggal la moo nga la ma jaageen jëf waaw ñu bëggaat rek nga ñëwaat ci lan mooy environnement ak lan mooy njëriñam ndaxte nit ñi dañuy dégg environnement rek waaye exactement xamuñ le vrai sens du terme. waaw environnement comme ni ñu koy waxee rek définition la bi nga xam ne si ah, bu gàtt la parce que boo déggee si boo déggee wolof wolof yi dañ koy wax mooy alom bi alom bi nag daañu ko wax mooy jaww ji daañu wax mooy lépp li nga xam ne si daf ñu wër mooy suñu dëkkuwaay mooy lépp li nga xam si daal fu ñu ak euh, suñu condition de vie nu ñuy dundee nu ñuy dëkkee nu ñuy liggéeyee lu ci ëpp yooyu yëpp dañ koy wax environnement environnement boo xoolee dafa am lu jëm ci kaw gi ñu koy wax atmosphère bi am lu jëm ci suuf bi ñu koy wax la terre terre bi nag moom gannaaw yàlla moom mooy ndayu lépp boo xoolee lan moo ñu wër mooy géej lan moo indi géej géej ci environnement la parce que moom la ñuy wax écosystème marin boo gisee ñu wax ñu àllam bi àll bi la àll bi mooy lan mooy biodiversité mooy écosystème terrestre bi nga vraiment moi am àll beeg forêt et yëpp donc environnement le plus nga xam si dafa jëm ci wàllu mbay dañ ko boole ci environnement le li nga xam si dafa jëm ci wàllu ressource minière ressource naturelle loolu aussi ci wàllu environnement la bok donc environnement lu y la environnement yamul ci y yamul ci nettoyer rek environnement gën na yokk environnement aussi branche la science parce que depuis 1886 dañ daan wax 1864 ñuy wax science de l'écologie science de l'écologie. nak moy lan moy étudier nit Donc, ci biir milieu terrestre donc lepp li jëm ci walu nature lu ñu wax nature lepp li jëm ci dëkkuwaay bi vraiment lepp jëm ci mbay mi lepp li jëm ci plus bi lepp jëm ci càmm gi lepp li jëm ci pêche bi yoy yeb dañ ko buñ ko bolé teunk ko lool environnement lu mat 20 ans wala 30 ans ñu ngi commencé depuis 1992 sommet wu Rio dañu commencé wax lan moy environnement dëggantaan donc 1972 avec le sommet de Stockholm commencé woon nañu wax loolu mooy environnement parce que lan la mooy lan la ñu seetlu dañu seetlu am na wax changement climatique changement climatique Ben bi nga xam ne si am na solo ñu war ko mën a wax mooy tey baie de Hann baie de Hann dafa daan am moment yu nga xam ne si heure bii bu ñu taxawee mën loo taxaw te waxu xuloo jën boo wax changement climatique bi indiwaat Sénégal ak Afrique lu ñuy wax sécheresse sécheresse boobu amoon depuis 1973 mu am lu nga xam ne si am crise du pétrole les yoy di wal du nga xam ci dafa jëm si nous ci environnement bi bi nap gi amatul njariñ bu mu amone bay bi amatul njariñ bu mu amone lepp lan mo wara science lu ñuy wax e groupe intergouvernemental scientifique bi nga xam permettre nga xam ci xam-xam science bu mu alerter le monde avec amna lu ñuy ah, euh, vraiment déclaration Brandland bi en 1987 ni il faut que ñun aussi tam sénégalais africains ñun sénégalais ñun scientifiques yi à travers le monde nañu baye xel ci li ñuy def loolu motax environnement bi njëriñam moy li nga xam ci dañu mëna permettre ñu delluwaat bay ni dal daan bayee démb ak bërki démb delluwaat napp nu ñu daan nappee démb ak bërki démb delluwaat fexé ba environnement bi permettre ñu lu ñuy wax lu ñuy wax lépp li jëm ci wàllu koom parce que économie de l'environnement environnement am parce que yu bëri amatul bu wax économie de l'environnement moi mooy lan fan ngay commencer les ressources fossiles mooy lan pétrole gaz yu nga xam si dafay am sant yàlla bu baax baax actuellement au Sénégal ñu ngi wax lu mel non mais boo demee pays yu nga xam c'est presque ñoo gën riche à travers le monde ñu leen wax les pays de développement les pays émergents pays bu ci ëpp dafay jaay ay pétrole dafay jaay gaz naturel donc loolu com comme économique bu mucc ayib parce que nag aussi environnement loolu lay gëriñ environnement bi aussi dina wax ci dëkkuwaay bi lu ñuy wax aménagement du territoire aménagement du territoire fay découler ci lu ñuy wax planification urbaine planification urbaine moy lan moy lepp li nga xam da fay indi commodité indi nga mëna dund dund gu rafet dund dund gu jaar yoon bo mënee faj bo amé ay structure sanitaire nga mën am école école à côté am dispensaire à côté am lepp li nga xamni lu ñuy wax mixité fonctionnelle lolu environnement daf koy indi daf ci taxaw bu baaxa baax donc motax environnement dal lepp li jëm ci walu aada lepp li jëm ci walu kom lepp li jëm ci walu social lepp li nga xamni ne moy dundu nit gi lolu lañu environnement motax nak environnement am solo bay léegi ñuy wax développement durable développement durable baat bi ci ëpp solo mooy lépp li nga xam si dafay dundal nit gi te mu nekk lu taxawaay bu yàgg kon moo tax lépp li nga xam si jëm na ci wàllu dund doomu aadama loolu la ñuy wax environnement environnement voilà merci beaucoup Aminata je pense bien que quand on parle de développement durable depuis pratiquement une trentaine d'années les experts du monde surtout les gouvernements internationaux à travers les différentes COP qu'on appelle COP conférence des parties le monde commence à changer parce que les experts du GIEC ont du GIEC ont constater qu'il y a une avancée de la mer. Pourquoi Laquelle avancée de la mer est due à quoi Est due à la fonte des calottes, ce qu'on appelle les glacières. L'océan Arctique et l'océan Antarctique, on les connaissait par définition ou bien par simple constat que c'était des places où il y avait de la glace. C'est la raison pour laquelle le président Al Gore, quand il avait fait ça, son fameux film, ça lui a valu vraiment prix Nobel de la paix. Pourquoi Parce que l'environnement, il avait lancé un cri de cœur qui lui a permis vraiment d'alerter tout le monde entier. Je pense bien que vous voyez aujourd'hui, avec les changements climatiques, on, peut, on, est en train de constater qu'il y a des changements un peu partout. Il y a ce qu'on appelle le dérèglement climatique, il y a des inondations, il y a des tsunamis, il y a des tornades, il y a toutes sortes de, pratiquement, je ne dirais pas malédictions, mais de catastrophes naturelles liées au changement climatique. Tout cela impacte malheureusement l'environnement. Et pour définir l'environnement, on dit que c'est tout ce qui nous entoure. Je pense que la définition elle est plus ou moins stricte, stricte. mais l'environnement concerne pratiquement tous les secteurs de l'activité, de l'activité économique, tous les secteurs de l'activité sociale, culturelle et environnementale, pour ne pas dire écologique. Donc je pense bien qu'on tend vers ce qu'on appelle la transition écologique. La transition écologique n'est rien d'autre qu'une science qui nous permet d'appréhender toutes les problématiques environnementales qui peuvent vraiment impacter négativement notre vie sur Terre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, cette définition est beaucoup plus élastique, cette définition est beaucoup plus, importante dans la mesure où ça nous permet vraiment d'appréhender tous les secteurs, surtout économiques. Parce que si nous prenons l'exemple vraiment de la baie d'Anne, plus particulièrement que je connais beaucoup, parce qu'aujourd'hui, il y a de cela quelques années, cette baie constituait la principale source nourricière de notre commune. Mais aujourd'hui, elle est en train de mourir de sa belle mort. À cause de quoi À cause des pollutions industrielles. Ou le pré-traitement, où il, n'existe pratiquement pas de pré-traitement. Toutes les eaux sont rejetées dans la mer parce que c'est des eaux chargées qu'on appelle les produits chimiques, il y a ce qu'on appelle le, le, DBO, il y a ce qu'on appelle le, DCO, le 5 Tous ces produits viennent malheureusement des industries qui peuvent continuer à polluer, à, notre baie. L'autre problème est que, comme vous voyez, il y a des femmes qui passent partout à déverser, à déverser leur qui sur la plage parce que nous autres pêcheurs, à nos moments donnés, on a confondu que la plage, c'était le réceptacle naturel de toutes sortes de déchets. Mais avec la prise de conscience que, le mouvement associatif, que je rends hommage au passage, surtout l'ASC et l'association des pêcheurs, comme je le disais tout à l'heure à l'endroit de Grand Dianguay, qui étaient les, pionniers, ils ont pris à bras le corps en signant des pétitions, en allant voir les autorités gouvernementales qui nous ont prêté une oreille attentive depuis 2001 avec le premier conseil interministériel, plus précaire le 19 février. Le 19 février 2002, depuis lors, l'État du Sénégal est en train de trouver les les voies et moyens pour réhabiliter cette baie. Donc cette baie qui était la principale source économique était en train de mourir de sa belle mort, mais aujourd'hui, avec la conscience citoyenne, ce qu'on appelle une prise de conscience et un meilleur pas, nous sommes en train de retrouver notre liste d'entrants pour faire de cette baie la principale activité économique. Parce que la plupart de nos parents sont des pêcheurs. Mhm. Et les pêcheurs, aujourd'hui pratiquement à 40 ans, ils sont tous partis à la retraite. Il n'y a que les vaillantes dames et à qui je profite de l'occasion pour vraiment leur dire merci maman, les femmes. Parce que c'est la fête de la femme, donc le mois de mars c'est le mois des femmes. Donc bravo à ces vaillantes dames qui de 4h du matin jusqu'à 20h ou 22h restent au, quai de pêche pour pouvoir trouver de l'appétence matinale pour les enfants qui vont à l'école. C'est très important et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on dit que la sagesse de la terre est une complicité totale entre l'homme et son environnement donc, faisons le maximum pour préserver notre environnement sain. Diko ko bu baax euh, mom monsieur Matar Diaw ci disponibilité te di len dox dig daje ci suñu benen numéro suñu environnement Jere ngeen